أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki M-Media groupe Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nungu ñu suñu jaamu yàlla bi jaayi saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di jël ziyaar boobu rek ak nuyoo bi di ko teg ci loxol kilifa gi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké suñu kilifa googu mu jotul ñu ko mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi mbokk liggéey bi di jéggalu bu baax a baax itam gëj a tàbbe gi ci liggéey bi ci li nga xam ne lii moom lañu ci sas ñu war ci taxaw saa su ne waaye it jamono ni muy dikk rek ak ni muy demee xat-xati jamono ak yi tey bari xañ na tax na jataay bi ni muy war a doxe dëgg-dëgg ñu xaw fi gëj ndax it dafa doon jataay boo xam ne dafa am ci lu mu aju te mooy ñu ci mën di taxaw ci bu ñu amee ay laaj yoo xam ne yi ay mbokk da ko fee rotal waaye it bu ay laaj amut it dafay xaw a doy waar lool ngir it jataay bi kon mën a dox kon xam naa may soññ sama bopp rek di soññ képp ku mën a doon lépp loo xam ne lii lu nu lënt ci suñu diine la rek ñu bañ caa xeeb dara ba ne jërta laaj wala ñu naw ko ba ne jërta laaj lu mu ci mën a doon rek dañu ko war a jéem a laaj ndax xam-xam moom doomu aadama yi maanaam ku ci nekk ak la la ci yàlla jox amul benn doomu aadama bu ñàkk xam-xam waaye xam-xam yi ñooy sutante xam-xam yi ñooy ëppante ñooy xam-xam yi ñooy gën a xóotante kon ku mu mën a doon ci ñun rek am na fa sab xam-xam yem foofe nga yem it am na ñu la raw gën laa bari xam-xam kon amul kenn ku jeexal xam-xam yi waaye day ñii dañuy xam lii ñee xam la ca des ci la ñuy ëpplante rek kon nañu jéem a góorgóorluwaat gën a takkuwaat rek te xam ne liggéey bi nga xam ne bii moom la nu yàlla baaxe nu seq ko liggéey bu am solo la bu baax la boo xam ne bii wax dëgg yàlla sëriñ bi moo nu ko baaxee jaarale ko ci ay xel yi doomu aadama jëmm yooyu yàlla baaxe leen mu nekk ci seenam xel ñu am ci yéene tudd ko ci seenu làmmiñ woonu ci nu bokk ci mu doon cër boo xam ne bi doonu lu nu sàkkul suñu bopp waaye ñun ñëpp nañu xam ne rek tawfiix la ak xiwal goo xam ne gi rek sëriñ bi moo nu ko defal jaarale ko ci jëmm mu taxawal liggéey bu am solo bii kon mboolem li fi jàll lépp ci wàllu alxuraan ji nañ ci gën a góorgóorlu gën cee jàpp waaye itam wàllu laaj ji nañ ci gën a bàyyi xel lu nu lënt rek ñu di ko laaj waaye tamit njàngale mi nga xam ne mii moom la ci mbokk yi def muy sëñ xaadim njaay moomu ak sëriñ xaadim ñing ak sëriñ bay juuf ak sëriñ murtada bajaan njàngale mu am solo moom itam nañ ci gën a góorgóorlu gën cee taxaw fexey rek muy dem di jàll di dem waaye tamit mbokk yi gën cee def seen yitte ci ñoom it di ko bàyyi yitte ci di ci mën a jariñu bu baax a baax ndax yépp nag dafa am solo am solo goo xam ne gii dañu doon war a jaral ñuy dagg suñu yitte léeg-léeg dem di dox di ko sàkku ji kon bu nu ko yàlla jàppandalee nga xam ne ku mu doon ci ñun rek liggéey bu am solo boobu bu ñuy def muy njàngale moomu di nu jàngal suñu diine jàpp ni la jàpp ni koo xam ne gi mën nga koo téye ba saa boo amee jot man koo diglu mën caa jariñu kon loolu tawfeex ju rëy rëy la kon daal yeneen ci la gën a jàppale gën ñu cee dimbali ban gën cee mën a taxaw bu baax a baax a baax di jaay seydi bu jur sallallahu alayhi wa sallam kon tey laaj yi ñu fi am rek ñu jéem cee jublu bi ci jëkk muy laaj bi jóge ci soxna Fatma Ndiaye Cuba ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax nag te di ko jégalu ndax eh, laaj bi xaw na fee yàgg a ñëw waaye dimanche bale jàll ci lañ ko waroon a tontu waaye dimanche boobu dafa fekk ne dañoo nekk ci ay xat-xat lool ba tax eh, jotuma ko woon a tontu maa ngi koy jégalu bu baax a baax nag ndax moom soxna si moom eh, ñoo ngi koy sant bu baax a baax daal xam ne lu ku bëgg lu baax la te it ku yittewoo liggéey bi la loolu moom am na solo lool yàlla na ko yàlla gën a defal tawfiix defal ñu ko ci bu baax a baax a baax kon soxna si dane kii ab chrétien bu jigéen la waaye daa am ku ko bëgg a takk ne ko léegi da ngay tuub ma takk la euh, bu ko defee mu nekk soxnaam maanaam chrétien bu jigéen la góor a ko bëgg a takk ab jullit boo xam ni góor la dene nag loolu kooku bëgg bëgg ko tuubloo takk ko mbokki chrétien bu jigéen bi dañoo bañ tey dañ koo tëkku ne ko eh, boo tuubee dugg ci diine lislaam maanaam dinañ ko def ak yow maanaam xam naa dinañ ko sàkkala ay pexe rek xam naa foofu it li ma fi jëkk a wax rek mooy ñoom waajuri ndaw soosu bëgg a jébbalu doon ab chrétien euh, ñoom waajur yi amuñu sañ-sañam maanaam di ko tere mu dugg ci lislaam waaye tamit amuñu sañ-sañam di ko ci tëkku ci leen loo xam ne maanaam dañ ko cay defal dañ ko ko cay def ci ay pexe yi kon tëkk boobu ñu koy tëkku ci ne ko bul dugg ci lislaam moom bu mu tee na dugg ci lislaam te xam ne lislaam moom naka jekk bi Seydina Muhammad nekkee Makka bi mu nekkee Madina yépp boo déggee xare yu bari ñu daan wax ak yooyu yëpp daanaka loolu daanaka dafa dacaa bokkoon ca sabab sa ay nit ñoo xam ne ñi dañoo gis ne bi lislaam ñëwee mooy dëgg diina jañ nekkan du dara la ñu nekkan du dara maanaam ñu daal di koy bëgg a bàyyi seeni bokk di leen tere maanaam boo koy xare yu baree bari euh, bokk na ci loolu moo ko sabab te booba yàlla may na sañ-sañab jullit ñi muy Seydina Muhammad ak ña ko gëmoon Euh, du xëy moom di dal ci kew kenn nag waaye nag euh, kenn nit nag dootu am sañ-sañab léegi nit bëgg a dugg ci lislaam nga di ko ko tere loola sababan ña doon tee nit ña ñu bëgg a dugg ci lislaam euh, loola tax ñuy dal ci seen kaw di xeex ñoom ngir ñu bàyyi yoon wi maanaam ku bëgg a dugg daal nga dugg waaye kenn du la forcer ci nga bañ a dugg di la ko tere kon loolu mooy fànn gu jëkk gi ci wàllu laajam bi maanaam amuñu sañ-sañab di ko tere mu dugg ci lislaam waaye tamit loolu ñu ko ciy tëkku bu mu tax muy yokket wala muy tiit ngir ne dañ koy mënal dara mbir yëpp yàlla moo ko yore yàlla moo yore suñuy mbir te ku nekk maanaam li yàlla dogal ci yow rek mooy nekk nanu fàttaliku xaadis bi seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxan muy bu ama am solo seydna muhammad noonu na maanaam li nga xam ne lii moom la yàlla bind muy nit ñeeg jinne yeeg lu mu mën a doon ne ñoom ñëpp bu ñu dajale woon ci benn benn béréb ne tey jii de nit ki danoo ko bëgg a jariñ daa bëgg am naanam lu nu ko defal ne na loola bu ca yàlla andut maanaam loola du sotti bu doon doomu aadama yëpp dañ ci ànd ak jinne yi la wax ne tey jii de kii dañ koo bëgg a defal loo xam ne njariñam lay doon te fekk yàlla dogalu ko ci moom ne ne njariñ loola du sotti waaye na it dafa waxati ne ñoom ñëpp itam muy jinne ak malaaka yi bu ñu dajale woon ñoom ñëpp ànd ne kii tey dañ koo bëgg a lor ci loo xam ne li yàlla dogalu koon ci moom mu mu war koo dal ne na loraa ngi joojee maanaam du ko mën a dal kon xadis boobu na ko xam bu baax a baax dugal ko ci ba mu xam ne an nafau wa durru min ar rahmani laysa min al bidaani wa sudaani cheikhul xadim dafa wax ne na ngeen xam ne njariñ ak loraange yépp mi ngi jóge ci yàlla waaye jógewut ci mbindeef maanaam menn mbindeef mënu laa lor ci dara dara loo xam ne lii yàlla dugalu koon ci yow waaye tam menn mbindeef mënu laa jëriñ ci dara dara loo xam ne lii yàlla dugalu koon ci yow kon jub jébbalu ko mu bëgg a def tuub dugg ci lislaam na ci góorgóorlu dugg ca bu ko defee loolu lu am am solo lay doon kon lu jëm ci wàllu laaju soxna soosu rek eh, dañ nan yushtaratu li sixati nikaahi wujudu waliyin lil marati comme soxna si lii mu laaj mooy liñ ko ci jëkk a wax rek mooy jigéen moom mënta maye boppam waaye mënta maye moroomam maanaam jigéen daal du tëkkab say kon faw moom soxna si balaa takk gee mën a wér day am kilifa yoo xam ne yii ñoo koy maye loolu lay wax ne wala yajuusu an tatawalla al mar'atu aqda nikah li nafsiha jigéen sëñta yor baatam mayeem maanaam di maye boppam li xawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydina Muhammad dafa wax ne laa nikaaxa illa bi waliyin waaw Seydina Muhammad ne ne ci tomb bu njëkk bi mooy ne ne ak takk daal maanaam takk ak jabar takk ak soxna mënta wér lu dul ni kañuy maye dafa am kilifa gu ko maye waaye tamit ci beneen tomb bi nga xam ne jigéen mënta maye mënta maye boppam Seydina Muhammad dafa waxaat ne ayu mamraatin nakahat bi gayri idni waliha fa nikaahuha batilun fa nikaahuha batilun fa nikaahuha batilun Seydina Muhammad ne ne fu fi jigéen maye boppam day ci loo xam ne lii tegawut ci ndigalal kilifa ga ko war a maye ne ne mayam googa baaxut mayam googa baaxut mayam googa baaxut maanaam takk ga baaxut la bëgg a wax da ko baamtu ñetti yoon ngir bëgg rek ñu moytu ko kon ci ñaari tomb yooyu may jëkk rek muy kilifa gi eh, na ci waxtaan ak kilifaam yooyu doon ay chrétien ba ñu mën koo mayee eh, mu ñu dog ko koy maye waaye tam na moytu bëtt ndigalal kilifa yooyee jéem d'accord guñu ci maye ko maanaam muy maye boppam ci loo xam ne doonu ci seeni ndigal kon ba tey bu fekkee ni nag eh, nii mu demee nii ab chrétien la ña ko yilif maanaam nunguwuñu ko maye ngir ne moom kat dañuy bañ mu dem doon ab jullit wala mu dem ca jullit ña bu boobaa dañuy seetaan meneen pexe ma pexe ma mooy lii ma bëgg a wax dane fa isa lam yarda waliduha bi hadha zawaaji bi sabab annahu muslimun wala yuridu taswijaha li muslimin intaxalat al wilayatu ila man yalihi min awliyaiha ka axiha aw ammiha kon léegi soxna si nag waajuram yooyu nga xam ne ay chrétien lañu bu ñu continuer rek maanaam nunguwuñu ko may jullit boobu nga xam ne bii moom la bëgg a seel ngir mu jébbalu ngir ne waa ji ab jullit la te bu ci ndaw si demee day doon ab jullit bëgguñu ko koo may bëgguñu koo may ab jullit ne ne kilifteen ko nga xam ne gi moom lañ ko yilifan ci wàllu takk gi kon day toxoo ci waajuram yooyu maanaam dem ci maanaam day jóge ci baayam masalan kilifteen gi nga xam ne moo ko waroon a maye war a maye googu day toxoo ci baay ba kon daal di dem ca mbokk yi nga xam ne ñoo sës ci baay ba muy min awliyaiha ka axiha lu mel ni mbokkam mu bokkal euh, ndey ak baay wala mu bokk ak moom ndey wala baay ku góor bu boobaa ñu dem su ko mënee maye mu maye ko aw ammiha wala baayam bu ndaw baayam bu ndaw mooy ki bokk ak baayam ndey ak baay wala baay wala rek wala yaay rek ne ne kon bu baay bi bañee daal bañ koo maye dañuy xool bu amee mag ju góor wala ju jigéen su nungoo doon kilifa ak maye ko mu maye ko su ko nunguut ñu xool bu ñu gisee baayam bu ndaw boo xam ne bii nungu na koo maye mu maye ko ci loolu amita tim loolu la waxaa ne fa in imtana'u jami'an zawwajaha ra'isul markazil islami fi madinatiha fa in lam yujad fa imamul jami'a nee nag ñoom ñi ñëpp nga xam ne ñi ñooy kilifaay ndaw si mooy chrétien bi ku ci nekk bañ na doon kilifaam ne du ko maye ne su boobaa bu fekkee ne ci lislaam la ñuy attee dañuy am dañuy xool ka nga xam ne kii moo ko yore atteef lislaam ba ñu dem ca moom maanaam mu doon kilifaak ndaw si doon ab chrétien daal di koy maye wala bu ñu amul ku mel noonu ci dëkk ba ba tey ñu dem ca imaam ja nga xam ne ji moo fay jiite ca jàkk ja wala ca jumaa ja maanaam mu doon kilifa ak ndaw si doon ab chrétien daal di koy maye bu boobaa may gi dina mën a sotti kon daal ci sart yi ci la takk gi di mën a sottee mooy faw ay waajuram ñoo koy maye wala ñu seet ñoo xam ne ñi bokki ay waajuram lañu maanaam ñu may ko ñu maye ko suñu su loolu mënta nekk ñu dem xool ku koo xam ne kii mooy atte ca lislaam ba maanaam mu maye ko wala ñu xool eh, imam ba nga xam ne bii moo nekk foofu maanaam ñu jox ko kilifteen nga mu maye ko waaye daal maye gi daal moom faw mënta ñàkk kilifa te góor lay doon koo xam ne gii mooy mooy mooy yore mbir moomu beneen laaj bi ci topp ba tey mu bokk ci laaj yi fi rot ci jataay bi rek mbokk yónnee ko fi moom day laaj lan mooy atteeb ki nga xam ne kii day julli suba maanaam ñaari rakkay fajar yi ki ko julli te jàngut ñaan googu ñuy wax xunuut maanaam ki julli suba ñaari rakkaa la muy farata ya julli suba goog farata gi boo ñu ko jullee rakkaa bu mujj ba soo taree faatiha ku saar wala ay aaya ba noppi bala ngay rukkoo dañoo sopp dañoo bëgg nga jàng ñaan googu ñuy wax alxunuut allahumma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxna'u laka wa naxla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu adhabaka jidda inna adhabaka bil kafirina mulhaq lii la ñuy wax duwaawul xunuut ñu ne dañoo sopp ku ko jàng ci julli suba mooy la nag ñaan googu ku julli suba ba pare nga fàtte ko lan mooy atteb julli googu dañ ko naan tarkul xunuuti laysa min mubtilaati salaat bàyyi xunuut ci julli maanaam du yàq julli ga bàyyi xunuut maanaam du yàq julli ga fa man salla wa nasiyahu fa salaatuhu saxiha ne nañ képp ku julli julli googu mu julli suba te jàngoo xunuut maanaam du tere julli ga wér na yàqul ci julli ga wal malikiyatu dahabu ila annahu laa yushrau sujudu sahwi liman nasiya al xunut bu fekkee ne li ñuy jàng ci fiqab ñi ñuy jàngal fiq muy ñiy jàngale fiqab imam malik ñoom dañ ne sax bàyyi xunut sax du tax maanaam ñu koy sujootal sujudu sahwi dañ ne xunut ku ko ba ñoom dees ko sujootal sujudu sahwi ndax ñoom defuñu ko sunna sax waaye mustahab lañ ko def muy lu ñu sopp rek la kon daal kiy julli julli suba jàngul xunuut dara waru ko ca moo xam ne da ko fàtte wala fàttewu ko deesu ko sujootal bu fekkee ne dañuy topp njàngaleem ñiy jàngale fiqab imaam Malik beneen laaj bi ci toppaat ba tey mbokk indiwaat ko fi moom itam day laaj atteeb njàppam ki nga xam ne kii maanaam gémmiñam day génne deret ju bari maanaam lu mel ni dafa mbuuraan nga xam ne moom daanaka deret ji moom saa su ne day génne ci gémmiñ gi rek rawatina bu jàppee ba pare gémmiñ gi day nàcc di génne deret loolu lay laaj moomu njàpp lan moo def atteem maanaam ndax deret ji dina ko yàq wala déet dañ ko ne wudu hadha shakhsi sahihun maanaam ku sa gémmiñ am jafe-jafe boobu te dafa am ñu muy dal lu mel ni mbuuraan day nàcc lu baree bari ne ne bu jàppee bu gémmiñ nga nàccee itam maanaam jàpp ma wér na ñu ni jàngal fiqhu dañ naan mu laa masatu nuqtati dammi lil jasadi la tanqudul wudua ne ne ki jàpp ba pare deret taq ci moom ne ne wala deret jooju génn ci moom ci gémmiñam ne ne du yàq njàpp ma wa xurujuha ba'da al-wudu'i laa yanquduhu aydan deret daal bu fekkee ne nit ki dafa jàpp ba pare deret génn ci gémmiñ bi noonu daal du yàq njàpp ma du ca yàq dara su boobaa mën naa galax ndiko rek daal di dem bu julli jotee mu julli wala lu mu bëgg a def ca njàpp ma kon ñoo ngi ñaan yàlla doole ñoo defal tawfiq bi jay seena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baax na jërëngeen bi